moto yi daanaka tey dawuñu ci kaw tali ndakaaru yi ñàkk daw boobu lañ boo wàccee génn ci tali ndakaaru yi rek daal di def constat bi ci say bët ci circulation bi mu mel ni gouverneur bu Dakar dogal bi nga xamante ne jël na ko ngir tere moto yi ñu daw ni ki tey jëlee nit ñi tënku nañu ci mesure bi respecté nañ ko li ko dale ci VDN bi dem ba ca corniche ouest bi daanaka néew na lool moto yi ngay gis ñuy daal di daw ci circulation bi yu ndaw yi ngi ciy gis lu ci bëri ci ñoom am nañu ay insigne yoo xamante dafay na ni motu de service lañ ñoo xamante ne daanaka bile arrêté gouvernemental tëb na leen ci ñetteelu article am nga xamante ne gouverneur bi mu ngi ciy wax ni bépp moto boo xamante ne bëgg na daw foo mu ñëw ñu daal di koy defal ab dérogation ci koo xamante ni moto yi lay daal di liggéeyee. ñenn ñi nga xamante ni ñu ngi dawal seen moto làqu la ñuy def ngir bañ takk der yi gis leen ñeneen ñi moom ñi nga xamante ni ñàkk nañu chance jàpp nañu seen i pa moto ba teg ko mu mel ni tënku bi ñu war a tënku ci bilépp arrêté buy tere moto yi ñu daal di daw tey ci talaata bi ci yenn gox yi ñenn ñi daal di ci tënku bu baax takk der yi moom muy gendarmerie wala polise ñu ngi ci tali yi di xaar kuy dawal moto bañ cee tënku daanaka moo waral boo ko seetloo moto yu bëri daal dinañ leen du jàpp ni tey jile